xibaar yi ñoo ngi ci ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare sëriñ seex njaay njare nag sëriñu lasraar bu yàlla baaxal la yàgg ngeen ko dégg fii ci kër gi moom nag dafa indi xabaar bu neex jagleel ko ñi muy jëflanteeg ndax sëriñ bi tourne bu mag la bëgg a amal ci weeru septembre jàpp weeru octobre tourne boobee bu jugee ci senegal réewu Gàmbi lay njëkk a dem fu ñu naan Sénégambia fa lay dal kon waa Gàmbi xaar leen ko foofee waaye bu jugee ca Gàmbi dina wutali réewu Maroc Maroc googee ca Casablanca lay dal kon wa Maroc xaar leen Serigne Cheikh Ndiaye bu fa bàyyeekoo dina wuta wutali réewu France France nag bu fa demee ca Paris lay dal waaye nee na ma Bordeaux nag munuma ma faa ñàkk a dem ndax Bordeaux googee am na ñu fay jëflanteeg waaye bu bàyyeekoo ci réewu France ma ngay wutali réewu almaañ dëkk bu ñu naan Berlin nag fa lay dal bu demee ci réewu almaañ kon waa almaañ waajal leen bu jógee Allemagne nag réewu Espagne lay wutali ca capital ba di Madrid nag lay dal waaye fi muy tëjee tournée boobee moo di ca réewu itali itali googee ca Rome la sëriñ bi di dal kon nag waa itali waajal leen tournée boobee nga xam ne sëriñ Cheikh Ndiaye Njare war na ko amal moom sëriñ Cheikh Ndiaye Njare nag dina yëngu ci mbir yu bari lool bokk na ci tawat yi sonal askan wi na ci hémorroïde ndoxum siti ak néew kattan ci ñi ko sañ a wax waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu listixaar noo bit yàlla may na ko ci sëriñ bi tamit am na ndombo yu baax lool bu ngeen jëflantee ba mu jox la ndombo yooyee di nga xam ne kaaraange ngi ci waaye ku ne tukki tamit di nga wax passeport wàllu passeport it yàlla may na ko ci lool waaye tamit am na beneen saafara bu doy waar saafara boobee day maye xaalis bu ngeen jëflantee ba mu jox la ko yàlla dëppale seeni mbir yow mi am sëriñ bi nag pour nga jokkoo ak moom ni ngay def lu yomb la numéro bii ma leen di waaj a jox ci ngeen ko mën a woowee moo xam whatsapp la wala appel muy 78 475 27 82 numéro boobee la ñu mën a jotee sëriñ Cheikh Ndiaye Njare képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd Habibou Diallo moom nag am na club bu bees tàq waaye génn réewu Arabie Saoudite ndax club bi ko moom di Al Shabab dañu ko able képp ca Damak FC Damak FC nag ma nga ca biir réewu Arabie Saoudite ca Saudi Pro ba moom Habibou Diallo dem na foofee able képp la nag amul option amul dara benn at lañu ko fa able nañu ko ñaanal mu doxal foofee ca damaak moom Habibou Diallo ñu jugee ci Habib Diallo te di ko ñaanal mu bind taarix foofee jël doomu Nigeria bi tudd Victor Osimhen demam ca Al Ahli bu ñoom Edouard Mendy day xaarandeegum ndax club bi ko moom di Napoli nee nañu nekk ñu fi di waxaale ak kenn képp ku ko bëgg fayal clause bi ko bàyyi ca Napoli toll ci cent trente millions d'euros jamono ji waa Al Ahli ñoo ngi càmbar ay mbiram su fekkee nag noppi nañu ngir fay clause bi moom Victor Osimhen su fekkee tegal nañu ko salaire bu baax ci table bi noppi na ngir dem ci réewu Arabie Saoudite kon dàqul dem foofe waaye day fekk ñu fay ko salaire bu ko jar Napoli nag nee nañu waxaale wuñu képp ku ko bëgg fayal clause am ci fàttali Chelsea mi ngi ci woon Paris tamit ñoo ngi ko doon bàyyi xel waaye jamono ji Al Ahli képp koy bàyyi xel Fabrizio Romano nee na moom mii di Victor Osimhen dàqul dem foofee waaye day fekk ñu fay ko salaire bu baax. ñu jugee ci Victor Osimhen ak bëgg-bëgg boobee waa Al Ahli am ci moom jël doomu Portugal bi tudd Rui Patricio moom nag ma nga woon ca AS Roma bu ñoom Daniele De Rossi waaye contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee dafa jeex tàkk. jamono ji nag bu ñu sukkandiku ci Fabrizio Romano juboo na ci lépp ak wa Atalanta Bergamo bu Gasperini ngoonu tey ji wala file ak suba mën naa am mu dem ca atlanta Bergamo ñu amal visite médicale yi su lépp yembee mu xaatim fa contrat gratuit moom Rui Patricio nekk ab góol xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jógee ci Rui Patricio ak bëgg-bëgg boobee wa Atalanta Bergamo am ci moom jël doomu Uruguay bi tudd Ugarte nekk ca Paris mën naa am nag mu dem ca Premier League ba doxal Sénégal ndax club bu ñu naan Manchester United dañu ko bëgg lool te Sky Sport nee na waxtaan baa ngi jëm kanam ngir ñaari club yi juboo balaa yàgg bu ñu demee ba di juboo nag li ñu juboo ci xaalis mën naa am mu toll ci soixante millions d'euros jamono ji waxtaan baa ngi jëm kanam bu baax ngir Ugarte nekk doomu Uruguay juge ca Paris dem ci ca Manchester United doxal xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle. ñu jógee ci Ugarte ak bëgg-bëgg boobee waa Manchester United am ci moom jël doomu joueur ci bi tudd Mamardashvili moom nag demam ca Liverpool lu mënatul ñàkk la. bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano Liverpool ak Valence juboo nañu ci lépp li ñu jubo ci xaalis nag mi ngi toll ci trente cinq millions d'euros plus bonus maanaam buñaa bu ca toftalu jubo ci lépp am na waaye nag du dem a gum léegi ca Liverpool day toog ca Liga ba club bu ñu naan Valence jàppale leen ba saison bi jeex mu door a dem ca Liverpool ànd ak ñoom doxal maanaam waa Liverpool dañu koy jënd ba noppi able ko foofee ca Valence muy Mame Matar Sefili nekk góol bu mën li muy def xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci Mame Matar Sefili ak bëgg-bëgg boobee waa Liverpool am ci moom jël doomu Colombie bi di James Rodriguez comme ni ñu leen ko waxee fan yële weesu doomu Colombie bi dem na ca Rayo Vallecano bu ñoom pate Ciss waxoon nañu leen ne daanaka lépp yemm na jamono ji nag officiellement delluwaat na ci Liga boobee nga xam ne miin na ko lool ndax ay jamono nekkoon na ci Real de Madrid moom James Rodriguez amal koppa bu baax ak réewam di Colombie ñu jugee ci James Rodriguez ak këlëbam bu bees jël doomu itali bi di Federico Chiesa moom nag du mën a xaatim contrat ca Barcelone ci saison bii ñu nekk loole nag du samay kàddu kaddu marka yéenekaay la ndax waa Barcelone dañoo gedd ay dossier am li ko waral nag moo di ay problème yu ndaw maanaam ay jafe-jafe yu ndaw kon nag Federico Chiesa du mën a dem gum léegi ca Barcelone loolee la marka yéenekaay xamle ndax ay mbiram Barcelone tege nañu ko de côté. ñu jugee ci Federico Chiesa ak xabaaram bu naqari waaye Barcelone googee duñu ko génn gum ñoom nag seen gan gi di Dani Olmo ba léegi enregistré guñu ko te suba nag Barcelone day jongante mu soxal Liga troisième journée maanaam ñetteelu bëccëg Rayo Vallecano la ñuy jàkkaar lool waaye ba tey jii may wax ak yéen waa Barcelone enregistré guñu ko moom Dani Olmo naam jaay nañu Michael Ngor fay jaay nañu Ilkay Gundogan Vitor Roque able nañu ko waaye tamit Clément langale able nañu ko ba léegi nag mbir mi doyagul ngir waa Barcelone mën koo inscrire kon suba bokkam ci match bi war a dox ci diggante Barcelone ak Rayo Vallecano wóoragul ndax ba léegi Barcelone inscrire gu ko ci Liga bi moom Dani Olmo xibaar boobu sa Athletic moo ko xamle gaa ñi xabaar yi foofu la buuree ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ba ci kanam ak beneen vidéo incha